da nga bëgg jàppale sa doom mu am formation universitaire de qualité ci benn université américaine fii ci Sénégal DOST D-A-U-S-T ñu koy wax Dakar American University of Science ak technologie du université boo xam ne bu panafricaine la nga xam ne science ak technologie rek la ñu ko jagleel fii ci Sénégal DOST da leen di jox benn formation cent pour cent en anglais ba noppi lépp da di contenu académique identique aux universités américaines ak DOST di ngeen am possibilité wu nekk ingénieur bu compétent ci ay métiers yii nga xam ni moom moo di maanaam mbirum informatique ak science yi nga xam ni moom moo dugg ci biir informatique mën nga nekk ingénieur mécanique aérospatiale nga xam ni nag ñooñu nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu loolu nga xam ne moo jëm ci jaww ji nga xam ni nag yii naaw jëm ci jaww ji ak roplaan yeeg yooyu mën nga doon it ingénieur électrique nga xam ne lépp loo xam ne dafa jëm ci électricité ak courant DOS da lay defal formation euh, bu conforme xam ni da ko inspiré ci université américaine yi contenu bi yëpp foofu la jóge dost da lay formé nga daal di am benn approche boo xam ne dañ ko basé ci njàngum anglais lépp loo xam ne dañ la koy jàngal dañ la koy jàngalee ci anglais salle de classe yi ba si laboratoire yi ñu daal di ko équipé ba mu mat am équipe pédagogique bu qualifiée waaye nag dost dalay jox enseignement programme en anglais ñi nga xam ne dañ ko déjee yëpp ci domaine innovation ak ak intelligence artificielle ak machine learning ak codage ak mécanique ak aérospatiale loolu yëpp nga fay jàng ci bëggee am lu la leer wooteel ci suñu numéro bi am na whatsapp 00221 78 128 44 58 78 128 44 58 wala nga visiter suñu site web www.dost.org wala dig daje ci suñu page Facebook Instagram wala Twitter wala sax mën nga ñu yónnee mail ci admissions ak s arobase dost point org Home Choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ni da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier dangay ngay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fii nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci àdduna bi la marque totale est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone woon 33 821 45 45 suñuy partenaire ñu nga ca Mbour Tiwawan Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à saint la marque Total foo dem ca àdduna bi fekk ko fa ndax qualité jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na Leeral FM jagleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine suba bu jot vingt et une heures vingt deux heures ngeen ci ànd ak al oustaz Abdallah Baba Dieng mu ciy feggoo ak ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ak seen émission bi di al fatawa ku am ak jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii 77 396 42 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine azamatu yamini law indi umru yafini lanashartu taali alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk auditeur yi nga xam ni yéen ñu ni déglu te yàgg ñu déglu ci seen émission alfatawa bi ngeen di ànd ak cheikhana al docteur Mouhammad Ahmed Lo xafidahu llah wa raa wa mattaana bi ilmihi wa waffaqahu lima fihi alxeyr wassalah ngeen ñuy topp fii ci rajo Leeral FM 104.6 bi ci Louga wala ci Salam bi ci Mbàkke wala sax nga taañaañal ba ca keppaar ga ca Kaolack wala nga continuer ba ca leeral ba ca Ziguinchor wala nga wëlbati ko wàññeeku wëri ba leeral ba ca Podor wala nga ni topp ci réseaux sociaux yi moo xam ci groupe whatsapp euh, fata euh, groupe fatawa soppe docteur Mouhamed Ahmed Lo wala groupe der derloom euh, officiel wala ci yeneen groupe yi wala sax ci xam sa diine wala dégg diine wala déglu diine wala yeneen yi ñu ngi leen di ziar di ñaan yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko ci euh, weeru tedd wi ñu nekk muy weeru tamxarit te tey di guddik tamxarit di àllarba juróom-ñeenti fan ci weeru xarit ci atum mille quatre cent quarante trois buñ xëy suba tamit muy kelu fan bi di bisu tam kon yàlla na yàlla defal leen ko Cheikhana ñu jox la nga ibbi soo paree ñu doogay jukki leen ci li fi rot ci laaj yi wa jazakumullahu xayran bismillahi rahmani inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa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 jotaayu fatawa di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen tawfiq ak fépp fu ngeen man di nekk Cheikh Abdallah noonu nga ko waxee suba mooy bisub Ashura weer wi nu duggit mooy weeru muharram muy weer woo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soññee ci ci koor àgg na ci ne gannaaw koorug Ramadan weer wi gën a baax koor mooy weeru muharram loolu moo tax weer wi li ci waaye mën a woor rek lu baax la ku mën a màng weer wépp woor ko sax def nga lu baax waaye nag li ci gën a ko mooy ñaari fan yi nga tudd muy àllarbay tey ñu yendu di taasuwaa muy juróom-ñeenteelu fan ak fukkeelu fan bi di ëllëg di yowmu ashura yow ma asura nag ci la yonent bi gën fedd li moom la saxoo nag di ko def itam nag ba àgg ci ne woor ko day far day far bàkkaaru at na ko jiitu kon nag bés na boo xam ne moom ëpp naa bàyyi mu jàll yàlla na borom bi tabaaraka wa taala jàpp ndalal yépp ñu mën koo woor ndax it kat lu wax ji bari bari ak jëf yi nag liñ ci santaane rek mooy woor kon Cheikh Abdallah ñu daal di ñëw ci li nga ay laaj insha allah loolu ci sunu borom tabaraka wa taala xamal ñu baaxee ko bokk yi waffaqakum allah jazakum allahu xayran cheikh bi kii nee na ñoom dañuy liggéey ci wàllu sante yéesaa jigéen ñi jaay seen bopp dañuy ñëw ñu defal defalal leen këyit kart boo xam ni suñ ko amul bu dajeek euh, police yi dañ leen di jàpp te dañuy ñëw chaque ki ñu ñu ñëw ñu tamponel leen mu ni ndax moom mi nga xam ni day liggéey ci état bi ñu koy def lool loolu nee na ndax baa bokkul ci ñi nga xam ni ñooy daganal lu bon alhamdulilah laaj bu mel noonu mel na jaaroon na fi jotoon nañ cee wax ne ñi nga xam ne ay docteur yi ñuy faj loola ñuy faj di contrôler ay nit di joxe rapport ci seen santé moo xam kaso bu ñu teg la moo xam rapport bu ñu gën di ko joxe la ñooñu ci seen liggéey lañ nekk ka ñuy faj moo xam ab moykatu yàlla la wala ab jaamukatu yàlla la wala ab jullit la wala du ab jullit ñoom la leen seen liggéeyu jox loola la ñuy wane moo tax ñooña du ñooy autorisé jigéen ñi di leen wax ne dem leen mooy yàlla loola seenu yoon nekku ci waaye jëmm ji teew fi seen kanam moom la ñuy xool sante moom mu demee lu mu leen wone lu mu leen jox ne lii la seen santé demee ñu def ko ci aw këyit su ko defee ñooñu mën koo wone ku ko gis xam ne seen santé fii la toll loolu rek la moo tax ñoo moom seenu yoon ne ku te lay xew amuñu ci it nag bakkaar wallahu taala alam jërëjëf Cheikhana jazakumullahu xayra cheikh bi kii nee na moom de dafa am lu ko jaaxal ndax dafa dégguñu ñu ni ku julli fajar tëdd loolu day wàññi wërsëgam ku julli tisbaar ba tëdd loolu day yokk wërsëgam mu ni ndax loolu sunna la sariya ko wax wala déet alhamdulilah ku julli fajar tëdd sa wërsëg day gàtt wala boo tëddee gannaaw tisbaar sa wërsëg day yokk déedéet loolu moom nekkul ci chariatul islam xam naa daal euh, du ma wax sax na julli waaye bu naaj wi tàngee ba njolloor jot euh, sopp nañ ku dallu li ñu tudde alqayluula alqayluula nag bokkut ak nelaw waaye mooy yendal bàyyi dang dang ji ñëw fi fi béréb nga ne fa ñuun dallu ba naaj wu tàng wi wàññiku ker xaw a sedd nga door a dellu ci liggéey ba moo xam jamono yooyu ngay dellu nag jamono yooyu ngay dallu moo xam da ngaa tëdd di nelaw wala da ngaa toog fi benn ko mën a nekkee waaye nekkatoo ca liggéey ba ak dang-dang ja daal ba waxtu woowee jàll nga jóg dellu ci sa liggéey loolu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko waxul nag ne ku nelaw gannaaw tisbaar wala ko wax ñu noppi nelaw wala yu mel noonu ne it loola day yokk waaye daal nee na dee leen ko def ndax seytaane du ko def dee leen yendal ndax seytaane moom du yendal wallahu taala alam jazakum allahu xayra barakallahu fikum cheikh bi kii nee na moom jàngalekatu alquran la waaye am ku ñëw jox ko azakam pour mu séddaleel ko ko nee na daara ji soxla na miir bu nu war a miir daara ji ba xale yi duñ mën a génn dinañ fa nekk mu sàmm mu ni ndax azaka boobu mën nañ koo def ci miira daara ji walla déet alhamdulilah alali asaka mënee su ci jóg rek daal di ci miire daara wala nga miire ci jàkka wala nga tabax ci jàkka alali asaka dafa am juróom-ñetti xeet yoo xam ne ñoom la sunu borom tabaraka wa taala wax ne nañ leen ko jox jiital ca alfuqaraa wal masaakiin mooy ñu ñàkk ba amuñu luñ dunde li feeg ñooñoo ngi am ci société bi asaka mënu leen a tegg jëm ci leneen ñoo am priorité soo ko yóbboo ci leneen it def nga loola waaye génnewoo asaka loolu moo tax waroon xam-xam yi dañuy wax ni juróom-yetti xeet yooyu de li feeg ñu ngi am ñoo moom asaka keneen mënu koo jël nag suñ demee nag ci am réew wala fi barab ba mu wóor na ñooñu amatu fa amatuñ fa ñooñu ñëpp seen situation soppi ko na ba lañ doonoon doonatuñ ko su boobaa manees naa yaatal dégginu fi sabilillahi ji nga xam ne jihaat noo ko taxaw di jóg yaatal ko ba dugal ci yëpp jëf boo xam ne jëfu yiw la su ko defee bunt boobu lañuy ñuy ubbi bu boobaa manees naa tabax ay jàkk mënees naa tabax ay daara man koo miire man cee def yeneen yu nuroo ak yooyu waaye day fekk nag lale moom buur na ba noppi lii lañuy jël nag su boobaa mu toog palaasu ña nga xam ne ñoo yeewoo woon asaka waaye ñooñu mënuñu ne jonn nag ñu jël asaka di ko tabaxee jàkka wala nga di ko miiree daara naam. macha allah jazakumullahu xayran cheikh bi laaj bi mu ngi jógee California mbokk mi. nee na dafa am koo xam ni da ko bëgg soxna nee na gis na ni wax dëgg yàlla góorgóorlu na lool ci diineem am jikko yépp daal waaye li ko jaaxal daal mooy nee na ay waajuram waajuram ndaw si daal xam ne moom ñu fi bi daalan ñu bi daalan sunna daal xamuñu ko te waxuñu ci dala mu ni ndax ku mel noonu dinañ ko conseiller mu dugg ci walla déet alhamdulilah chariatul islam day ba muy soññi góor ci mu tànn soxna wala muy soññi jigéen ci mu tànn boroom kër booba ki ngay jëflanteel lay wax nga tànn ko su fekkee ne daal jigéen jëla gis nga ko mu nekk boroom diine sharia soññ na la ci kookee nga bañ koo bàyyi mu jàll soo takkee jigéen rek ngir yeneen yu dul diine nee na mën ngaa dox ba mu yàgg nga dóor sa loxo ci ëkk xam ne lala daal yaa sa bopp bu dee góor gi ñëw di labat fii te wax ne su fekkee gis ngeen ku ngeen gërëmloo diineem ak jikkoom may leen ko soxna kon ñaari woy dencante yi ñooy tànnante seeni waajur nag leneen la maanaam wékkuñu sëy bi ci ne waajur wi day def xocc ci siraatul mustaqim jàpp ci sunna mu door a dagan nga takk soxnaam déedéet boobu charte sharia tegu waajur yi mën nañoo bañ sax jullit nag ba noppi nga mën koo takk yooyu faw ñu xàmmee ko xam ne yu bokkut la lu ci bokkul luñ ko ci dugal ki ngay takk ngay xool ndax baax na am baaxut su fekkee wóor na la ne kii moom boroom diine la te li war a dox seen diggante ci bëggante dox na ko la ca des nag mooy waxtaan ak ay waajuram ak luñ mën a mel ak luñ mën a doon su ngeen waxtaanee ba yàlla dogal juboo am seen diggante wàllu yoon nangu la ko fasal su boobaa am nga soxna ci shariatul islam naam waffaqakum allah jazakum allahu xeyran cheikh bi kii li muy laaj lu dëppoog la sax tey jii ci guddik tam bi ñu nekk tey nee na dafay dégg yeesaa yenn waxtaankat yi ñuy wax naan euh, muawiya ibn abi sufyan radiallahu taala anhu moom moo wax soxnay xasan ibnu ali mu tooke ko jaada mu tooke ko ci la ko tooke mu rey ko mu dee mu ndax loolu dëgg la wala déet nee tamit dañuy wax ni yazid ibnu muawiya bi ñu boomee xuseyn moom moo décrété def euh, tamxarit fet nit ñi di tëgg di fecc ak di soppi reer mu ndax loolu wër na wala déet muy wax tamit ni euh, caaxaan bi bidaak ceddo yi nii def ci kii bi ci guddi tamxarit bi nii ak buñ xëyee suba muy ay këpp ay julleeg ay tësngaloog yooyu yëpp nee na daal bëgg na vraiment Euh, nga jaaraat ci ci lu leer nañ alhamdulilah muawiyat ibn abi sufyan day tànneef la ci saxaaba yu baax yi ci la bokk jege woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lool àgg ci bokk ci ñu doon bind waxyu maanaam alquran alkarim di wàcc ñu ne ko laay jooji bind ko ci saar wa nga xam ne mooy saar sàngam ñu jël ko bind comme ni ko ñeneen ña daan defee li tax ba yàlla teg nguur ci loxoom mu jiite xeetu lislaam jiite goo xam ne ñëpp seede nañ ne rafet na lool yi nag mu wax ne moo fexe ba rey xasan loolu amut histoire mënu koo joxe ndax mënu ñoo dem bay coow dox seen diggante xasan dellu gannaaw ne ko bàyyi naa la nga jiite mu wëlbatiku di ko sàkkal pexe moo tax loolu moom chia yi ñoo koy wax bind ko sax nag ci seeni i téere waaye dara nag taxawu ci dara taxawu ci dara amu ci Yasid ibnu Muawiya nag du tànneef moom loolu lu wër la sabaanu baayam la waaye ànd ak loolu nag gisul wax ne moom moo jël bis boobu di ko feetoo def na ay njaaxum yu rëy rëy rëy ci diggante mag Xuseyn moom Yasid donte la ëpp ca njaaxum yooyu ñu àndoon ak xose bi ñoo ko def loolu ñu xam histoire te jàngee ko ci téere yu wér xam nañ loola waaye teewul nag moom du doon ku ñuy setal loola moo tax diisul sonn ci ndax moo jëkk feetal tam xarit wala jëkk koo def ndax def na yeneen yu gën a rëy loolu waaye ala kulli xaal saxul ci histoire nag ni moo ko jëkk a def moom borom xam-xam yi ci waxtu maandu daal ku mel ni Ibnu Taymiya mu nuroog moom day wax ne gis la boo xam ne ñaari kuréel tàgg nañ ci ci biddaa ñi ko jël def ko mu doon ab dëj bu continuer rek saa at mu ñëwee ñu dëjaat ko ñooñu ci biddaa lañ nekk ñi ko jël def ko bisu bànneex saa bu ñëwee ñu bànneexu ko it feete ko ñooñu itam ci biddaa lañ nekk loolu daal mooy lu wér moo xam ku ko a def ak ku ko mu ca def wallahu taala alam waffaqakum albaari jazakum allahu xayran cheikhana cheikh bi kii nee na soxnaam si mu takk daal yàgg na ñoom ñaar lool waaye ba koy takk waajuram la doon dajal ci jàkka ji mu ne ko kaay ma may la soxna bala ma faatu bi ko ko mayee nee na yàlla def na avant muy faatu moom bokk na ci ñi ko seeti ci njëkk mi faatu ci ay waxtu yu néew waaye nee na mu jàppaat loxoom jàpp loxo soxna si ni ma diw dénk naa la diw te yàlla tax téel ma ko te yàlla tax mais nee na soxna si daal jikko yu ñaaw la yore nee na jamono ji sax euh, moom dafa retraité waaye nee na soxna si fexe na ba euh, maam daal euh, xiirtal xale yi ba nga xam ni yéene wun seen papa dara duñ ko jox dara mën naa toog sax at du leen dégg ndax ñoom ñëpp da leen yóbboon tamit Italie mais moom dafa ñibbisi léegi mais xale yi daal déggal leen seen yaay te seen yaay it mi ngi jëflante ñoom moom jëflante boo xam ne nee na bu ñaaw la lool bis bu ne bëgg koo fase nag nee na waaye xalam dem ca la ko waajur wax mu ni daal bëgg na ci xalaat bëgg na ci conseil alhamdulilah xam naa xalaat bi ak conseil bi day du weesu rek ñu xam ne euh, li nga xam ne xeetu tuuma la maanaam koo xam ne dafa tuumaal soxna wala mu tuumaal borom këram wax ci moom ay jikko yoo xam ne yu ñaaw la loolu doonut loo xam ne mënees na koo dégg ci genn wet rek daal di koy atte waaye melokaan wi mu wax nag koy atte moom ngay atte sépp soxna soo xam ne yor nga melokaanu wii waa ji wax tey dañuy wax ne nekkoo ci jub moo xam kaa bii nag noonu la am ndéet ndax ngir nu mën a xam ne noonu la doon na jaadu nu dégg soxna si ci boppam mu wax waaye ginnaaw genn wet gee wax nag melokaan yi mu wax ku mel noona day na nga mel moom jëmut kër te it ëgg mu jëm lu mat a tiit la su fekkee noonu la demee kon su fekkee mbir ma noonu ni mu ko waxee nag noonu la demee te yàlla dogal muy dégg kàddu yii na tuub dellu ci boroomam te soppi te fàttaliku kóllëre googu yi nga xam ne moom la baayam doon feddli ci kanam kii mu may doomam loolu genn wet la geneen gi ca des mooy ànd ak kóllëre googu yi nga xam ne bàyyi bi da ko doon feddli di ko xam ne dénk naa la ko loola moom baay bu ko wax ak bu ko waxul bu nekk kuy maye sa doom ku nekk la nga def mooy dénk ko koo xam ne am nga ci moom yaakaar dénkaane nag ak am yaakaar ak fedd li dénkaane li yooyu yëpp nag du tax nit ki duutu mën a fase soxna si ci sharia su demee ba moom sàmmontewut ak loola ba def yoo xam ne kii mu séqal moom attanatut loola te mënut fa jàll sharia du taxaw ci kanamam mukk ne ko doo ko mën a fase ndax bàyyi nee na war naa nga mën naa nga mën naa nga déedéet ah bu dee moo seetal boppam nag ba moom da koy téye ngir kàddu kenn du ne ko itam doo téye sa soxna waaye xam ne loola daal nekkul ab tënk boo xam ne day tax nit ki bëgg fa si jàppoon si bu ko mën a fase wallahu taala alam jërëjëf cheikhana jazakumullahu xayra cheikh bi soxna si nee na dafa gis daal ñi bu ñuy julli ñu tàmbalee bismillahi rahmaani rahim tàmbalee alhamdulillah ci kaw mu ni li mu bëgg a xam daal lan mooy li wér ci yonente bi sallallahu alayhi bu daa julli moom ak ay saxaabaam alhamdulilah li wér ci yonente bi sallallahu alayhi wa ci lu muy tàmbalee buy jullee day buy julli day mooy li anas ibnu malik radiallahu taala anhu ci hadis bu wér julli na ci gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa ak saxaabaam yu mag yi abubakar ak umar dégg ne suñuy jàng dañuy wax bismillahi rahmani rahim ca suuf daal di ne alhamdulilahi rabbil alamin ca kaw eh, dañuy jiital sax istiaada mooy muslu ci seytaane ba noppi doora wax bismillahi rahmani rahim doora tàmbalee jàng fatiha nag tàmbalee ko alhamdulilahi rabbil alamin kon noonu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon def kon tàmbalewul rek ci alhamdulilahi rabbil alamin joo xam ne bisimilah rahmaani rahiim jiituwu ko waaye yëkkatiwul kàddoom ci kaw itam da wax bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil alamin waaye njàngale ma noonu ko Anas ibnu Malik nettale noonu la tëddee wallahu taala alam baarakallahu fiikum cheikhana jazakum allahu xayra cheikh bi kii dafay laaj mu ni salaatul xaaja mu ni lu wér la ci xadis wala déet ndax da cee dégg daal ay coow alhamdulilah xam na salaatul xaaja bu fekkee daf cee julli nit ki am soxla di bëgg a ñaan dal di julli ñaari rakka noppi tàllal ay loxoom ñaan loolu day shariatul islam nangu na ko te soññee na ci itam ndax loolu la ñuy tudde ak tawassul bil amali mooy kerkeraanu ci sa jëf ju baax ngir yàlla nangu ko ndax képp ñaan goo xam ne jëf ju baax da koo jiitu dañ cay am yaakaar kii bëgg a ñaan ubbi alquran jàng jàng jàng ba mu yàgg mu ub tàllal ay loxoom ñaan kooku mën nañoo am yaakaar si ñu nangu ko ki julli ñaari rakka ñaan mën nañoo am yaakaar si nangu ko ah, nekk noonu julli ci yonent bi sant yàlla lépp loo xam ne xeetu jaamu yàlla la rek mënees na ca tawassul ngir def ñaan bu dee loolu lañ jublu salaatul xaaja loolu lu baax la am na ñoo xam ne nag salaatul istixaara dañ koy tudde noona moom it xëy na sa ak loola waaye moom lu spécial la ndax dafa am ñaanu boppam ak saar yoo xam ne moom nga see jàng naam jërëjëf cheikhana waffaqakumullah cheikh bi kii mi ngi tudd Jàll Njaay dëkk Kaffrine di liggéeyee Ziguinchor nee na dafay gis yee saa bu ñuy julli imam bi bu jàngee fatiha ba jàng saar ba egsi ci alayhi sallahu bi ahkam alxaakimin day dégg am ñoo xam ne naan balaa mu ni ndax loolu lu wér la lu luñ war a wax ci julli gi wala euh, yu demee noonu daal bëgg na ci am lu leer nañ alhamdulilah déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalewul ne euh, soo jàngee sooratu tiin ma ci njeexit la da ngay wax balaa wala ko nekk ci sa gannaaw day wax balaa fekk yaa ngi nekk ci julli foofu moom ab xadis sax raf na ci waaye wérut bu dee nag ca mujjub sooratul qiyaama alaysa dalika bi qaadirin ala an yuxyiya al mawta foofu ab xadis ñëw na fa boo xam ne lu bari ci waroom xam-xam yi wéral nañ ko ci ne boo agsee foofu wax balaa waaye nag du ci biir julli kenn ko wax ci biir julli ndax suñ ko ci doon wax kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax wala ñu tuxale ko ci saxaaba yi nga xam ne dañ daan jullee ci gannaawam wala taabeexoon yi waaye loolu lenn amu ci moo tax ci biir julli daal yaari saar yooyu ñoo ci yem amu ci lenn woo xam ne kuy julli dana ko wax balaa bu dee ku kaamilam di jàng nag boo ñëwee ci sóoratul qiyaama ba fa jeexe jeexee euh, sañ wax ne balaa door a ci beneen saar sóoratu tiin nag moom wérul ci biir julli wérul ci bitti julli wallahu taala alam baarakallahu fikum jazakum allahu xayra jërëjëf cheikhana cheikh bi kii mi ngi tudd ahmad di woote Italie nee na daal moom dafa gis ko jaaxal lool foofu nee na na ay tubaab yuy takk ci africain yi wala sénégalais yi sax bëri tamit ay sénégalais yuy takk ci tubaab bi mais nee na daal bu gisee ak euh, tubaab bi takk sénégalais dan naan rek léegi maam tuub na tuub na ndax dan naan ko waxal ñaari baati seede yi mu wax ko ba nga xam ne léegi presque tubaab danaan loolu rek la ñu ne ko waaw su waxee loolu ba pare daal moom affaire bi jeex na waaw amul lum ci dundaat amul lum cay defaat du julli du woor du lenn daal waaw ba tax na daal dafa mel ne léegi baat boobu dañ koy wax rek pour mën a mën a yewenal sëy bi mu ni ndax noonu muy gis noonu loolu moom jaadu na wala déet ñu ci maye ay soxna ak i jullit alhamdulillah bëgg takk jigéen ñu ne la waxal ñaari waati seede yi nga daal li koy wax daal ne loolu dong lañu ne la waaw nga daal yem foofa amul yenn mandargay diine yooyu ca teg loolu su fekkee mi ngi am lu jaaduwut la war sa mën a taxit des di takk jigéen waaye la ëpp ci njuumte la su fekkee noonu lay amee ni mu ko waxee ci laaj bi day dellu ci ñi koy tuubal su fekkee ne def na leen lool dong la ñu ne ko waaw war naa ñoo xam yeneen yi ciy tegu yëpp yoo xam ne ay warteef la mu war koo def mu doon ay farata ak yoo xam ne da ko war a bàyyi mu doon yu xaraam ak yu sib yuñ sib loolu lépp jaaru nañ jàngal ko ko continuer nag jàngal ko nu muy jullee jàngal ko ci alquran loo xam ne it dana ko mën a jullee jàngal ko ba mu xam tawxiid dëgg-dëgg mooy lan wartandiku ko ab safaanam muy bokkaale yooyu kat doon na loo xam ne lu mënta ñàkk la su fekkee ñoo ko sanag lu bokkut ak loola daal di koy may jabar la ëpp ci bàkkaar ba ñoom ñoo ko ko doon sax ñoo koy gàddu mbir ma du noonu waaye nag jàpp ma ne it noonu yi mu ko waxee ñëpp noonu lañuy def am na ci ñoo xam ne dañuy tuub tuub goo xam ne tuub gu wér la euh, jóge ci góorgóorlu ci seen diine nga am na ci man ñu ma xam ñoo xam ne sax dem nañ ba lu bari ci jullit leen doon tuubal tey ñoo leen raw ci diine kon loolu ñu bañ ko généraliser wallahu taala alam jërëjëf cheikhana barakallahu fiikum cheikh bi kii mi ngi tudd bàcc ñang di woote ci Brésil nee na yeesaa dañuy tukki foofu diggante dëkk ak dëkk nee na dinañ def daal ñetti fan pour mën a wàññeeku ci diggante bi nag dinañ def ay escale saa ñu wàcc fenn mais nee na tisbaar ak takkusaan bi da ko fekk ci yoon bi xëy na fa muy agre fekk timis di waajo jot ak yu demee noonu nee na bu demee ci benn dëkk bi muy njëkk wàcc pour fanaan fa xëy suba dem ndax bu boobaa day julli ñaari rakka damaam day wàññ wala day matal nee tamit bu xëy suba tamit di demaat mën naa euh, àggaat boori timis ndax julli mën na ko fekkaat ci yoon bi ndax bu demee moom it day euh, matal wala day wàññi su fekkee ni tamit euh, julli na gee ndax mën naa julli safa wiitar wala déet tukki bi mu nekk daal ci ñetti fan yi nee na fu mu wàcc dafa fanaan ndax day wàcc day matal wala day day wàññi mën naa julli safa wiitar wala déet alhamdulilah kuy tukki day li mu sañ loo xam ne ku tukkiwul sañu ko mooy sañ ne julli gi nekkoon ñeenti rakka mu julli ko ñaari rakka tisbaar takkusaan ak gée waaye timis ak fajar nag yooyu moom kenn du leen wàññi yetti julli yooyu daal bu ci nekk ginnaaw mi ngi ci biir tukki bi te ñibbi seegul fi mu jóge woon ba keroog muy duggaat ci dëkk bi mu jóge woon saa bu waxtu julli jotee sañ na koo julli ñaari rakkaa su fekkee ne def nay julleem itam ba guddi day def safa ak wittar maanaam wittar moom mënu koo bañ def chafa nag wax naa ne la mooy la ngay julli door a julli witr witr mën naa doon benn rakka mën na ko ëpp itam waaye loola ngay tëje si julli guddi nag bu doon da ngaa julli daal fas yenee def la ngay tudde chafa ak witr te nit ñi niñ ci gën a miine mooy julli ñaari rakka daal di julli benn loolee bala nga koo def na fekk julli nga sa julli yëpp ba noppi su ko defee daal di julli loola nekk ci tukki du tee nga julli witr waaw loolu noonu la leneen li nga xam ne kuy tukki dana ko di def mu amal ku njariñ lool waaye du moom rek moo ko jagoo nag ndax ku tukki wu ci na ko def mooy boole ay julli su fekkee ne yaa ngi départ tisbaar a ngi jot te wóor na leen bala ngaa àgg fi nga jëm timis dana jot te amoo occasion mën a taxaw fenn di julli ci yoon wi kon jullil tisbaar julli takkusaan door a départ su fekkee ne yaa ngi départ ci waxtu woo xam ne xam nga ne timis jot na te waxtu geewa ci yoon la lay fekk te mënoo taxaw mënoo wàcc jullil timis daal di julli gee door a départ jullit suba nag mu ne su ko booleeg dara moom ci waxtoom rek la su mën a julli wallahu taala alam jazakum allahu xayra jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na ndax dina dagan nit changé nationalité am nee na africain la changé am beneen nationalité bu dul nationalité Sénégal wala. alhamdulilah changé nationalité bi lañ cee xool mooy maslaha bi nga xam ne moom la ci wut su fekkee ne daa denk ci am réew ñooñu teg ay conditions yoo xam ne dañ nekk ku ko remplir ku nekk mën nañ laa may nationalité te moom loola bëgg na ko ndax gis na maslaha mu ca nekk su boobaa chariatul islam du ko ko tere. boroom xam-xame xadiis yi ñoom dañ daan wax ne képp koo xam ne sax na fi barab yenti at yàlla kooka dañ koy daal di askan yi ca béréb boobee mu nekk loolu moo tax da nga daal gis kenn ci boroom xam-xam yi koo xam ne dañ koy askanale Baxdaad ne ko Baxdaad yi di ko wax Basri di ko wax askan li yeneen ak yeneen mën nañ ko ne Makki wala ñu ne ko Badri xeer na ko ci nekk fekk fu ci nekk nekk na ko lu mat yenti at ñu daal di ko koy askane kon ñooña ñoo jiitu ñi nga xam ne ñoo dem ba jëmmi jamono civilisation bi tasaaroo ñu teg seen condition conditions yoo xam ne ñii dañ naan boo ko amee fukki at boole ko ay këyit yu jeex boole ko ak euh, dundiin woo xam ne amul yu jaxasoo condition yu bari yooyu yëpp borom xam-xam yi xadis ñoom jiitu woon nañ ci loolu teg benn charte rek muy foo am yenti at man nañ laa askale ne mooma mooma réew loola nag nit ñi dundatuñ ko waaye ànd ak loolu suuf sépp suufu si yàlla la fépp fu nit gis ne fii mën na faa dund diineem te dara du ci fekk te gis na fa maslaa suñ ko joxee nationalité boobee sooy boobu jël ko su demee nag ba mu wóor ko ne béréb bii moom mënu fee dund diineem wala diineem day dellu gannaaw na daw jóge foofa seeti feneen foo xam ne mënees na faa dund diine wallahu taala jazakum allahu xayra baraka allahu fiikum waffaqakum allah cheikhana tontu leer na nañ nañ nañ nañ nañ yal na yàlla barkeel te wéral yaram wi incha allah rabbi eh, guddal fan yi te barkeel ko mbokk auditeurs yi fii la ñuy taxawandi ba beneen ay bis ci seen émission alfatawa wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. da nga bëgg jàppale sa doom mu am formation universitaire de qualité ci benn université américaine fii ci Sénégal DOST DAUST ñu koy wax Dakar American University of Science ak technologie du université boo xam ne bu panafricaine la nga xam ne science ak technologie rek la ñu ko jagleel fii ci Sénégal DOST da di jox benn formation 100 pour cent en ba noppi lépp da di contenu académique identique aux universités américaines ak DOST di ngeen am possibilité wu nekk ingénieur bu compétent ci ay métiers yii nga xam ni moom moo di maanaam mbirum informatique ak science yi nga xam ni moom moo dugg ci biir informatique mën nga nekk ingénieur mécanique aérospatiale nga xam ni nag ñooñu nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu loolu nga xam ne moo jëm ci jaww ji nga xam ni nag yi naaw jëm ci jaww ji ak roplaan yeeg yooyu mën nga doon it ingénieur électrique nga xam ne lépp loo xam ne dafa jëm ci électricité ak courant DOS dalay defal formation euh, bu conforme ak système LMD DOS dalay defal euh, formation boo xam ni euh, da ko inspiré ci université américaine yi contenu bi yëpp foofu la jóge DOS dalay formé nga daal di am benn approche boo xam ne dañ ko basé ci njàngum anglais lépp loo xam dañ la koy jàngal dañ la koy jàngalee ci anglais salle de classe yi ba si laboratoire yi ñu daal di ko équipé ba mu mën am équipe pédagogique bu qualifiée waaye nag DOS dalay jox enseignement programme en anglais ñi nga xam ne dañ ko déjee innovation ak robotique ak intelligence artificielle ak machine learning ak codage ak mécanique ak aérospatiale loolu yëpp nga fay jàng boo ci bëggee am lu la leer wooteel ci suñu numéro bi am na whatsapp 00 221 78 128 44 58 78 128 44 58 wala nga visiter suñu site web www.dost.org wala dig daje ci suñu page Facebook Instagram wala Twitter wala sax mën nga ñu yónnee mail ci admissions ak s arobase dost point org Home Choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ni da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier da ngay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fi nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci àdduna bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone woon 33 821 45 45 suñuy partenaire ñu nga ci Mbour Tiwawan Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à saint la marque Total foo dem ca àdduna bi fekk ko fa ndax qualité jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na Leeral FM jagleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seen laaj yu jëm ci seen wàllu diine suba bu jot vingt et une heures jàpp ngeen ci ànd ak al oustaz Abdallah Baba Dieng mu ci feggoo ak ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ak seen émission bi di al fatawa ku am ak laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii 77 396 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine عزمات يميني لو عندي عمر يكفيني نشرت تعالي